Bienvenue sur Salam Vision. bismillah moo neex le soleil yéene kaay ne Amadou Mahtar Mbow day waaw daal dinañ koy màggal na téeméeri atam yàlla na yokk amiin dama ne la gis nga góor googe di Amadou Mahtar Mbow daal dinay xamal ndaw yi nag ne leen bëgg leen seenu réew te tiye ca bëgg leen Afrique yé te tiye ca soyez votre pays et à l'Afrique président Macky day waaw ci téeméeri at yooyee nga xam ne nag moom lañ doon màggal Amadou Mahtar Mbow ca xew ma day daal dinay yi ne leen xool leen ci ci moom mobilisation bi nga xam ne waa la mujjee mardi itali la ilaha illallah xeex yi nga xam ne la ñu bokk waaw ñoo daal di kon saboté xew ma perturbé ko te pourtant Abdou Karim Sall day ma nga fa woon Abdoulaye Timbo ma nga fa woon honorable député Awa Niang ma sax yéeni kaay yi day ma jaagi ne moo lakk daay gee waaw ndaw yi nga xam ne dañoo bokk ci APR rouge googee nga xam ne Ibrahima Ngom ñu waaw dama na xale yi dañoo ñëw ne Ibulaay day toog ci tribune officielle bi par force organisateur yooyu daal di taafantaloo ne tribune ba daa fees é eh waay samba tribune yéene kaay ne fala daay ga nag foofee nag la coow li kon daal di jolle xeer ya naaw siège kon naaw commencé dam ngir ñu rawale Abdoulaye Timbo day benn ca ay garde koram daal di dóor abam bu gaz ah maa la wax lii la de mbir ma pëccaxoo ca Pikine Mamadou Gueye njiital neneen ah naqarlu na nag la nga xam ni kon moo xew ca Pikine goo gaye maa bi nga xam ni kon moom la yàq les si ko yéene kaa ne meeting waa APR yooyee day ca diwaanu Pikine waaw lu waay xam boote doomam la mu jéedee daw ga kay mel ni dule ma responsable ya ca boppam kon nañ leen faa loxati leen fa gaaw yuuxoo leen tam te ca wuu balaa musiba mbaa bakuma kon di am 24 heures yéene kaa coowal suite boote googee waaw ak taxawaayu politique u Ousmane Sonko day waa Benno Bokk Yaakaar waaw contre attaque fayu nañ de <clears throat> publique a la ak défendre tam yi te li ñu mën a tul nangu day mooy ay honnête citoyen continuer ba léegi ni leen ak Ousmane Sonko mi la di leen fitnaal di leen dunduloo téeréer bëgg leen koo imposer loolee nangu tribune yéene kaay ak libération yéene kaay ne ndajama Abdou Karim Sall doon day ndajama yeegul de déedéet parce que waa AP rouge nga xam ne Ibulaay Ngom moo waaw ñoo tas xew ma wax daa toog ca kaw tribune ak ca Fuuta waaw waaw xale yi dañ ne du ca dal ils disent non ah. parce que ndaw yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ca diwaanu Matam gële dañoo génnee morceau xonk yoo xonkal ko ba mu xonk coox ah. ba pare nag di yuuxu kon Fuuta fatigué Fuuta sacrifié Fuuta fatigué méga meeting mi nga xam ne moom lañ fa organiser day ay millions yu dul jeex ngir benn xawaari politique laa la wax Pape Diogoy Faye mooy waxtu samay kàddu de laas en tout cas Farba Ngom day la mu bëggoon am na ko de le pari de la mobilisation dama ne la Farba Ngom mobilisé na ba mu baax direct news de may ma ma yeggali may ma ma yeggali bi dama ne la nguuru Macky Sall gii guddiñ tol nii li muy ci Ndakaaru njaajal joob gi aca Fuuta ak Pikine neexul laa la wax parce xoolal ma am na ay ndaw yoo xam ne APR la ñu bokk waaw mais dañu ne dee réunion bi nga xam ne moom la Abdoulaye Diouf Sarr ak Amadou Ba waroonoo organiser fii du fi am tey te du fi am ëllëg laa la wax la la dama ne la xoolal ma xeex ba am te diwaanu Pikine démb yéene kaa gi ne waaye responsable APR yi a critique yéene kaay ne en tout cas Farba Ngom day woowaat na ay ñooñam de maa la ko wax le quotidien yéene kaay ne cool Ousmane Sonko gi lée waaw Macky Sall ak ñamu àndal nee nañ bëgg a daaneel du ñu ko nangu laa la wax leaderu Benno Bokk Yaakaar noo doon daje waaw tudd ñu turu Ousmane Sonko dee waaye wax ji moom parce que nee woote daal réew mi lée insurrection benn njiital bu nekk ci opposition bi moo ko te dañu ko porté plainte ngir viol Source si Jamil day ci yéen kaay ma jambal jàngi waaw xamal na njiital Pastef ne ko man de su ma gisee Macky Sall mi li ma koy wax mooy tuuma yi nga xam ne teg nañ ko ci kaw Ousmane Sonko mi nañ ko laal li teg ko fële réew mi quotidien taal bi nga xam ne ñi ngi taal réew mi day a teg loxo bi nga xam ne tegoon nañ ko loxo Ousmane Sonko waaw Mamour Cissé day wax na ci doy waar a doy waar njiital PSD jant bi waaw parce que Mamour day ne ne duñu nangu benn yoon politiciens yi daal réew mi laa la wax loolooy dëgg de jaañ naar Pape Abdoulaye Diagne yemu ca parce que grand serigne de Dakar waaw nee gis nga heure calcul politique yi ci boppam kon moo jeex man daal en tout maa ngi woo président Macky Sall mi lée ngir mu woowaa réew mi yëpp ñu waxtaanee ko rek wàllum kaaraange gi du Ousmane Sonko day waaw nee na nit ñi nga xam ne ñoom ñoo taxoon ñu tëj leen tey ci kaso bi la ñu ngi xam ni kon moom la jóg tey ni lée nekkul cosaanu Pastef de déedéet di laaleeg waa système bi ñoom Ahmed Khalifa Niass ak ñoom Bougane Gueye Dany ak ñoom Maïmouna Bousso Ousmane Sonko nee Karim Wade mi leen nañ ko delloo ay axam ak ay yelleefam Alaaji Malick Ndiaye day communication Pastef waaw nee na Sonko bu bees ak Ousmane Sonko ba woon ne de nekk fi di jàppante ñoom Bougane Gueye Dany yoo ay xuloowu ñàkk fayda yoo déedéet Ousmane Sonko kay instant bi boole moo ko war boole boole te Ousmane Sonko nag nekkul ne bu njëkk a ngi nii muy laaleeg waa dëgg la te comme que nag guddi ndol ni la ñu bëgg a bañ waaw Ousmane Sonko est le chef de l'opposition kon li ko war nag mooy jéem a boole opposition bi yëpp vox populi ne opposition bi day ña ngay dajale nag ngir jàkkaarloo ak nguuru Macky Sall gi lée ah waaw dama ne la waa front de résistance ba ne nañ ne ci biir yenn ci ay parti opposition waa M2D waa Jotna waa CRD mouvement société civile yeeg syndicat yeeg activiste yeeg dama ne la gars yi jug nañ de l'observateur Idrissa Seck mi la moom soow waaw Déthié Fall day ma ngay demal boppam de ku bëgg a dee weexu L'Observateur ne Ousmane Sonko day waaw week bi daa waroon a dem ca doolu Touba gële jege ñaali xalif ba dañoo xam le ne jëmu jote dëjë day daa xam le ne ji mbir mi baaxul nañ ko ajoon ba jëmi jamono waaye organisation féminine yi jigéen ñi nga xam ne dañuy taxaw soxna yi lé lan moo tax ba coowal aji saar gi lé waxuñ ca moo ma jaaxal bi nga xam ne def ko ci wàllum yelewaan gi day taalibe la ñuy dajale kon at Dakar Times ne liggéeyu guddi gi dey tàmbalee tina de soirée yee commencé tina de boîte de nuit yaa nga saf saf kuwet di laajal samedi bii ñu génn laa la wax l'observateur ne dëgg la de gars yi dee commencé waat nañ Dakar bàyyi na ek <laughs> waaye guddig Dakar yooyu de ak lu mu saf saf saf saf saf saf saf saf saf gaa ña fay dem tam buñ fàtte ni pétrole bi lañ bokk de parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième jërë ngeen jëf Guy Marius Sagna ak compagnie mu di ñoom Assane Diouf Clé tey jii ca la janoo ak doyen des juges Samba Sall l'observateur moo ko bind ba wax ñu waxtu wan la war a doon 10 ci yoor yoor gi yéenekaay bi nee nañu ca lay door altine ñaar fukki fan ñaar ak talaata ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février ca la leen téye woon mandat dépôt woon leen ndax tuumay tuur bale ordre public bi ak i nasi pexe yoo xam ne mën naa jóg Ousmane Sonko seen audition tey jii ci lay tàmbali mu di Guy Marius Sagna di Assane Diouf di Clédor Sène Birame jii ci la ñuy gisee ak doyen des juges waaye jege lool ab liberté provisoire bi mu di ñoom Guy Marius Sagna tey ñu génn ci kaso moom la l'Observateur xëy génne ci xëtamu njëkk boole kooki di jàngat aw doxalinam yéene kay bi nañu moom Ousmane Sonko njiital parti Pastef mi ngi ci contrôle judiciaire waaye terewul boobee ba léegi mi ngi nekk ci di taxawal ay alliance politique yamu ca ne la mu ca teg teg nag mu di dem di seeti ay politiciens yu fi nekkoon loolee mu indi jaaxle jaaxal ñu bari ci nit ku ne dafa bëgg a soppi système bi système démocratique bi ci réew mi Le Quotidien bi na ne Macky Sall ak ñi mu àndal ñu di waa Benno Bokk Yaakaar bëgguñu kenn di ci sensé lu toll ne tarfatal ay ni journal bi xamal ñu ne lu jóge ñaari semaine ginnaaw li fi xewoon mu di fitna ju amoon ci réew mi ba ay bakkan rot ci keroog samedi leader yu Benno Bokk Yaakaar yi daje nañu ci njiital seen njiit mu di président Macky Sall la ñu tënke ca ndaje ma bi défendre nation bi askan wi Moussa Tine jiital alliance démocratique penco bokkit ci coalition taxawu Sénégal di ñuy wax ci xët mu njëkk Vox Populi ñi ci nguur gi mu di ñi ci pouvoir bi tekkiwu ñu benn yoon seen ngemb dañu ko yorama rek ci defarwaat ca la nekk waaye yàggam-yàggam dañuy dellu siwaat ministre Abdoulaye Sow di xamle ci xët mu njëkk Les Échos fi woon du fi amaat ku ñu dóor danañu fayu duñu toogati mukk di faste suñuy loxo ci jamono jooje réew mi na ne fële ca Ndar ko caxat-caxate yokku fitna la tribune ñu teg na ci joxe xalaatam defi proposition ci nan la def ba wutal jeunes yi ci réew mi emploi mu di am xëy ak ñetti téeméeri milliards ak juróom fukk yi président Macky Sall fas yéene dugal ci wàllu woowee ci weneen wàll journal Les Échos mi ngi ñuy wax ne wax ji ñaar la nañu waa APR waneeti nañu seen bopp ci meeting bu ñu doon def démb ci Pikine yëf ya dafa far sax mujjoon jaxaso ba amoon fa ay responsable yi APR ak yu Benno Bokk Yaakaar yu ñu fa doon yuuxoo ba dañu leen a mujj rocc rawale leen la tribune nañu fa ay pompe à génn na fa ay xeer ak i siis lu nekk gaa yi sànnante nañu ko fa ba am ñetti nit yu ca jëlee gaañu gaañu ba mujjee l'hôpital lépp nag doonoon ci teewaayu ministre Abdou Karim Sall Awa Niang Pape Gorgui Ndong Daouda Ndiaye ak maire bu Pikine di Abdoulaye Timbo mi nga xam ne moom bi fitna ji tàmbalee jolli ca la ñu ko rocc rawale ko la Sénégal mel ne ku naan ñu ñoom ñi ci mois présidentiel gi bu ñu xamoon li leen di yoot danañu bàyyi la ñuy yoot danañu gën a defarwaat dolli la ñu defar woon ndax ñi ci bi am na ci ñoo xam ne ñoo ngi gisee di waxtaan ak na si pexe fas yéene taxawal cadre bu mag ci seen biir Vox Populi nañu grand cadre d'unité d'action noonee la ko bëgg a tuddee wut moo di doole ju ñu mën ak Macky ko nguuram moom président Macky l'observateur nee nañu bijoutier yi ci réew mi ñoo ngi koy fàttali seen bopp ubbil yéenekaay bi association nationale des bijoutiers du Sénégal ñoo doon daje ci week bi fa la waxee coono bi ñuy dund ci fisc bi ak ni mu yàqee seenub liggéey wax nañu it ci li président Macky waxoon keroog ci discours à la nation am lu ñu mën di liggéeyee Ibrahima Niang mi jiite association gi leen jaboote ñoom bijoutier senegal yi ne ñu bi président Macky Sall waxee loolee ak léegi ñoom dara lañu ci gisagul.